ajmain wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wa zidna cilma mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ndokkeel di leen dalal ci koor gi di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu nangul ñu nangul leen yàlla def ko mu nekk weeru xéewal weeru njëggal weeru yërmande delloo siwaat ko ay ati ati at mu fekkuñu ci jàmm ak salaam ak lislaam ak xéewal suñu borom taxawul ñu boppam macha allah ginnaaw loolu ñu ngi dellu siwaat ci comme nañ ko doon defee daaw ci weeru koor gi waxtaan yi nga xam ne ñoo ko doon séq ci kooru daaw gi buñ fàttalikoo bis bu nekk daanaka daan nañ jël benn xadis jàngat ko ci heure ndogu ñun ak yéen fii ci dégg diine macha allah ñu tàmbali woon ko ci commencement koor gi di ko def chaque jour ba koor gi jeex ren tamit alhamdulilah noonu lañuy ñuy dellusiwaatee ci waxtaan yi nga xamante ni mooy nekk jataayu koor nekk waxtaanu koor ngoon gu jot incha allah dinañ ñëw ak yéen ci waxtaan yi ren li nga xamante ni bi moom lañ ci taamu def ko comme euh, incha allah sujet boo xam ci lañuy waxtaan mooy xew-xew bu rëy bi yàlla tudd ci diggante firawna ak Muusa suñu borom subhaanahu wa taala nettaluñu ko wax ñu ci alquran xew-xew boobu ci ay bërëb yu bari mu nekk ne mbir la boo xamante ni bu ko suñu borom subhaanahu wa taala nettalee baamtu ko ci anam yu bari ma koy tudd di ko fàttali banu Israël waaye dañu ko fàttali tamit ñun xeetu lislaam am na ay jàngat yu bari yoo xamante ne bi moom moo ci nekk ndax euh, nu ñu ko suñu borom subhaanahu wa nettalee dafa fekk ne dafa amoon benn euh, réew moo xamante ni di Égypte dañoo amoon benn empire am benn royaume bu mag bu am doole am ci ay jamono firawna bi fa nekkoon nekkoon firawna bu jéggi woon dayoo. ci kàttan gi nga xamante ne bi amoon na ko ba yàlla ne inna firawna ala fi l ardi wa jaala ahlaha chiaan moo ne firawna demoon na ba nekk koo xamante ne bi dafa yëkkatiku ci kaw suuf jël nit ñi di leen def ay catégorie di neewal doole ñi ñii ci des mu jël leen féetal leen fii maanaam daal diviser pour mieux régner la yàlla subhaanahu wa taala wax ci ni mu doxalee woon léegi firawna moomu nga xam ne demoon na ba am tabax empire boo xam ni ci Égypte Euh, tegu woon na ci xam-xam boo xam ne xam-xam bu bu bu am doole la ba léegi ñu koy jàng ci wàllu taarixu doomu aadama ci kaw suuf ci ay traces yoo xamante ne seen civilisation boobu ñu tabaxoon bàyyi na ko fi bañee na sax di wax ne ñoo ñu jàpp nañ ne seen boobu découvrir nañu lenn ci ay technologie ndax bu fekkee ñoom ñoo construire pyramide yi am na ñu def ay études ci gis ne il était impossible ñu tabax ko ci ni nga xamante ne bi noonu la ko lekk léeg yenn égyptologue di waxee ci yor ay bant wala ay xeer di dóor di yat granit bi nga xam ne moom lañu doon jël di ko taaye di ko tabaxee pyramide yi granit boobu jamono yooyu euh, amuñu woon ay outils yoo xam ne ci li ñu xam ci li ñu xam yoo xam ne mënoon na ko taayee ci façon bu xereñ bi ñu ko doon taaye ak ni mu nekkee loo xamante ne bi lu tolloo la tegu ci benn anam bi beneen bi ci des mooy calcul yi ci nekk ak mathématique bi nga xamante ne bi moom moo ci nekk loolu benn côté la beneen côté bi ci des muy wàllu sorcellerie muy wàllu occultisme njabar njabar boobu cosaanam du woon ci ñoom mais mi ngi jóge woon Baabil ci ki ñu tuddee Namrud wala Namrud Namrud boobu nekkoon Baabil nekkoon Irak moom tabaxoon na benn moom tamit empire ak benn royaume boo xam bu amoon doole la rayoon papaam bi ko jur daal di jël nguur gi fekk ne seytaane moom moo ko ko xelal ñëw jël forme benn jëmm ñëw ci moom. xelal ko ne ko bu fekkente ni bëgg na am nguur goo xam ne kenn dootul amati nguur gu toll noonu moom mën na ko teg ci yoon bi mu daal di koy jël nax ko wommat ko ba reyloo ko papaam bi mu ko reyee mu daal di koy teg ci trône bi commencé koo gëmloo ne ko nit ñi moom la ñu war a jaamu léegi dugal ko ci wàllu bokkaaleeg yàlla subhaanahu wa taala ak fetteerlu kooku noonu seytaane daf ko teel a jàngal li ñu tuddee si muy njabar njabar boobu mu ko doon jël di ko jëfandikoo pour gën a am nguur pour gën a not xeetam tasaare ci xeetam li nga xamante ne bi mooy animisme tasaare ci xeetam li nga xamante ne tamit mooy sorcellerie ak occultisme xam-xam boobu nga xam ne moom moo tax a tabax tasaaro woon foofu ba yàlla yebaloon ñaar ñaar ñooñu ñenn ñi ngi wax ndax ay malaaka lañ ñenn ñi di wax ne duñu ay malaaka moom lu yàlla subhaanahu wa taala wax ci ne mooy ñaari ñaar ñi mu yebaloon muy euh, Haarut ak Maarut mi mu yebaloon Irak ci Babel ñuy ñëw di jàngal nit ñi di leen xamal njabar ngir moytandiku loo leen ko di leen xamal ne kéeféer la am na ci borom xam-xam ñu wax ne wa ma unzila ala al malakayni loolu li muy tekki mooy ay malaaka lañu woon am na ñu wax ne wa ma unzila ala al malikayni mooy duñu ay malaaka waaye ñoom itam ay ñu am kàttan lañu woon ñoo xamante ni daal ay personnalité lañu woon ci xeet booba ñoo ñëwoon di xamal nit ñi njabar ak li ci nekk ci mbonte pour ñu wettandiku ko xam-xam bu ñuul boobu occultisme boobu moom moo ñëw Égypte égyptiens yi jël ko daal di koy améliorer ba àgg ci ci niveau boo xamante ni bu kawe la ci jamono jooju jamono jooju noonu kon nga gis ne kooku nga xamante ni moo dominé woon kaw suuf di na dafa tegoon tànkam ci ñaari mbir yooyu benn bi mooy wàllu xam-xam bi nga xam ne xam àdduna la di xam-xam lu ci jëm xam-xamu yu bari ci wàllu aar ak beneen xam-xam ci des mooy xam bi nga xam ne xam bu ñuul la loolu boo ko xoolee tey moo dominé àdduna empire bi fi nekk tey ak euh, li fi nekk tey ñu koy wax ci occidentaux yi lépp seen seen seen empire ci kaw loolu Firawna tabaxoon empire ñoom tam ci loolu lañ ko tabax benn bi mooy wàllu développement bi ci wàllu technologie yeeg yi nga xam ne moom lañ notee nit ñi jàpp ne ñoom ci raw di tabax di construire di dem ci ci ci ci jan ci si fu nañu dugg fa ci àdduna bi beneen bi ci des mooy côté bu ñuul bu lëndëm bi nga xam ne ñu bëri xamuñu ko voilà côté bu ñuul bu lëndëm bi nga xam ne ay nax la ay nas ay nocc ci suuf la loolu tamit nekkaat beneen jaanib boo xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo tey ci jamono moo tax kon boo waxtaanee ci firawna rek da ngay ñëw ci suñu suñu suñu jamono ji ñu dund kon waxtaanu firawna ak Moussa waxtaan la woo xam boo ko tàmbalee mën nga xam fu ngay commencé mais doo xam fu muy jeexee kon loolu rek lañ ciy def comme euh, tàmbali ci première suñu première jataay ba beneen jataay bi ci des ñu soog a ñëw nag dugg ci ni ko alquran nettalee hada wallahu alam wassalaamu aleykum